Mamou mais yow mm. merci ma belle tu es très bien habillée. Mm-hmm. Euh, na. Fatou fi jaar ah, Fatou Diouf Faye daal musóor bi nga defal Sophia baax na. Mm-hmm. <laughs> d'accord léegi euh, temps bi moo ñu euh, moo ñu tënk ñu waxtaanee gis-gis lan nga ñu andil comme thème. Euh, tey jii nag euh, thème bi ñu war waxtaane lii di euh, les rêves yi yi nga xamante ne parfois sax day doon source de conflit bu ñu nee rêve rek mooy gént <laughs> léeg-léeg mu indi coow ci biir kër tout ça ñu wax ci àndax kii di imam Babacar Gueye mhm. moom lañ dalal nekkatul gan ci kër yi imam Babacar ñu ngi lay nuyu mhm. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته euh, assistance bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa ak sa sant gannaaw bu ñu muslu seytaane hmm. di santaat bu baax sunu borom mi nga xamante ni moo ñu may occasion ñëw di fàttali hmm. donc di nuyu soxna si bu tamit sama doomu baay sëriñ Sëriñ ah. ak euh, soxna maam ak vraiment oustaz li mu fi développé macha allah am na am na solo trop trop macha allah xanaa boo balaa ñu dugg rek juste di apporter benn contribution bu ndaw rek ci lu mu wax ci si mm. ah. Seydina Mohamed si Seydina Mohamed une minute rek une minute rek une minute rek parce que mu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo comme ni ko sunu maam Sëñ Tuubaa waxee noonu la ko tamit euh, sunu maam Seydi Hadj Malick waxee mm. mu ne wa kaana asjaaru naas xalqan wa xuluqan mu ne bind maanaam li ni ñu bindee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa daanaka moo dàq lépp loo xamante suñu borom bind si taar gi d' abord waxtaan maanaam physiquement mm-hmm. Mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la beauté physique mm-hmm. dafa impressionné woon l' ensemble du monde ba sax ki nga xamante ni moo yaay Aïcha donc laaj na ko yow vraiment sa euh, sa taar bi jaaxal na ma dafa mel ni rek yow bala sa bala sa borom di bind da toog naan ko na sama kanam yi mel nii na bët yi mel nii na nopp yi mel nii na bakkan bi mel nii na tànk yi mel nii ainsi de suite ainsi de suite <laughs> loolu baax léegi ko beneen mais nu nu nu jikko ji rafetee nu jëmm ji rafetee noonu extérieurement mais tamit intérieurement mhm. noonu la dàqee woon juste ko kon mhm. di wax ni rek moom Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vraiment il était il était hors macha allah booy waxtaan ci Seydina Mohamed macha allah maam Diaby sa xol day fii voilà waaye ñu ñu ñu dellu si si si thème bi doon benn contribution bu ñu ci vraiment allah ci xam-xam bu rafet bi ak xam-xam bu leer bi mhm. mu leer na boo ko déglu xam li li muy wax xam na ko macha na solo comme li mu wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom macha allah ni ko yàlla bindee moom mhm. euh, c'est inexplicable kenn du moom mhm. kenn du moom moo dàq ñëpp. Euh, gannaaw nag jot jotuma nuyoo ñoom Serigne rek ak invité mi aussi maa ngi jégalu Serigne Serigne. non dana la comprendre temps bi moo ñu xoj. Euh, temps bi moo ñu xoj euh, donc rek dañuy wax ne tey nag ñu war waxtaanee lii di gént. Mhm. comme Imam Babacar li ma wax rek parfois mu doon source de conflit. Mhm. xam nga gént dafa léeg mu neex dangay yeew sa nga ne su bu doon man kese la du ma jóg ci nelaw gént gi day continuer mhm. waaye léeg nga yeew nga tiit parce que la nga xamante ne moom nga jot a gis ci gént gi euh, tey jii nii ñu gis ne aussi am na ñi nga xamante ne peut-être def nañ ko métier di interpréter ay gént côté boobu xam li ci diini wax mm-hmm. di nga gis nit gént dem gis nit ne ko firir ma gént gi ñu bëgg a xam ndax euh, loolu euh, diine ànd na ci mm-hmm. ndax jamono yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu amoon na am déet mm-hmm. yaa imaam Euh, onze billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim donc balaa ñu wax ci wàllu diine bi d'abord dañuy jël li nga xamante ni mooy wàllu science wàllu médecine mm-hmm. euh, boo demee ci psychanalyste ki ci gën a siiw mu nekk Sigmund Freud mm-hmm. moom nee na le rêve c'est la la réalisation donc mm-hmm. des désirs inconscients maanaam nit kii lu muy rêver mooy li nga xam moom la bëgg te réellement amu ko maanaam ngay xalaat oto bëgg oto lool lool ba boo tëddee si da ngay xalaat oto donc moom nee na donc boobu moom mooy côté bi nga xam mooy le côté positif lu neex mais nag bu fekkente ni aussi tamit dafa côté côté négatif moom la nasaraan bi di woowee li nga xam mooy le cauchemar donc rêve dafa am cauchemar am donc maanaam kon nga daal di gént loo xamante ne ko soble da ko bëggoon lool mu yitteel la lool mais malheureusement dans les dans les faits dans la réalité amoo ko maintenant ci wàllu rêve façon gént moom am na boo xamante ni suñu borom lay jógee boobu noonu moom dëgg la am na gént boo xamante ne si wàllu seytaane la mhm. donc seytaane mun na pousse nit ki mu gént gént goo xamante ni kon da koy euh, da koy da koy euh, day tax mu am benn gis-gis boo xam ne da koy xoolee moroomu moroomu jàmmam mhm. mais avant ñoo ba tey ci loolu euh, dañuy wax ni ki nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo gént bëri na même ci ba ci yonent yi lañ koy commencé boo gëlee ki nga xamante ni mooy yonent yàlla aadam mhm. moom moom dafa gént xam nga sunu borom dafa ko bind boo ko sunu borom bindee nag après moom kese kese mu nekk si àjjana amul wéttal amul dara mais à son alentour si côté bi gis na ñoo xamante ne am na ay mala yoo xam suñu borom bind na leen maanaam espèce yëpp suñu ba mu des moom léegi nag suñu borom laaj ko ne ko nan nga gisee li ma ni ma ni ma la bindee. mu ne ko macha allah li ma bindee rafet na lool lool lool lool ndaxte maa dàq ñi nga xamante ni ñeneen ñi nga xamante ni donc bind nga leen. wante nag lenn moo manqué aw ma compagnon aw ma koo xamante ni mën na maa wéttali aw ma koo xamante ni aussi tamit mën naa ànd ak moom di jaamu yàlla wala mën naa ànd ak moom di fekkee samay occupation. mu waxee loo pare suñu borom rof ko li nga xam ne mooy nelaw léegi nag ba muy nelawee moom ki nga xam mooy yonent yàlla léegi nag mi ngi new si biir nelaw bi nag sunu borom daal di rocc li nga xamante ni mooy faaru càmmoñ bi daal ci bind ki nga xamante ni mooy sunu maam xawa léegi nag ba mu ko ba mu ko bindee ci ba pare si biir nelaw yi ba tey sunu borom def ki nga xam mooy yàlla aadama daal di gént daal di gént ki nga xamante ni mooy xawa léegi nag mu daal di yeew ba mu yeewoo gis xawaa mu toog si pegg si wetam mu ne ko yàlla posé ko question ndax xam nga kii mu ne kii xàmmee naa ko kii laa toog kii kii laa géntoon comprendre nga donc fële histoire bi nga xamante ni donc euh, ki nga xamante ni mooy yonent yàlla Adam ak Xawa par la suite boo déglu boo demee ci histoire dem si siira yàlla daal ko koy ma ñoom ñaar ñu daal nekk li nga xam ne ay yooyu dencante mm-hmm. kooku kenn la si li nga xamante mooy ci musa ki musa génn ki nga xamante ni mooy yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima tamit génn na yaa bunayya inni araa fil manaami annii asbahuka fanzur maazaa taraa qaala yaa abati af'al maa tu'maru satajiduunii inshaa Allah mina saabiriin loolu noonu gént boobu noonu moo waral li nga xam ne mooy tabaski euh, ki nga xam ne mooy yonent yàlla Ibrahima moom da doon nelaw léegi nag ci ay nelawam xam nga yonent la donc ñoom bu ñu géntee rek dëgg lay doon mhm. léegi ci ay nelaw mu daal di gént ki nga xamante ni gént ñu ne ko yow kat rendi sa doom wala mu gént di rendi doom léegi nag mu yeewu daal di woo ki nga xamante ni donc mooy isla Ismaël di doom ji ne ko yow sama doom damaa gént di la rendi ma lay laaj sa xalaat hmm. ñu ne sunu borom euh, doom ji muy yonent yàlla Ismaël nga xam la suite sunu borom def na ko yonent mu ne ko yow daal sama baay defal li nga xamante ni moom moo moom moom lañ la sant sans euh, sans équivoque moo amul leen loo xamante ni euh, kii na ko ci nuñ koy waxee itam xel naa na ko ci keneen ki nga xamante mooy gént moo gént muy ki nga xam mooy Firawna hmm. Firawna dafa gént moo lu mu gént maanaam dafa gént maanaam benn safara boo xamante ni dafa départ fële sa siri romb romb romb ay ay dëkki dëkki dëkki dëkki dëkk ñëw ba daje ci fi nga xamante ni euh, moom mooy fa mu ne léegi nag mu daal di woo ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci dëkk ba di firi gént mu ne man de lii laa gént lii ak lii ak lii ñu ne ko de ah yow de li nga xamante ni moo nga gént mooy ki nga xamante ni moo lay daaneel mooy ñëw daaneel sa nguur gi kooku noonu kat góor lay doon. xam nga donc bu mu nee bu mu nee góor lay doon nag moo la suñu alxuraan donc di wax ni kon inna firawna ala fil ardi wa jaala ahlaha shiiqan yastadqifu taifatan minhum yusabbihuna abnahum wa yastaxi nisaahum maanaam kon na moom nekkoon na koo xamante ni ku doon yàq si kaw suuf la maanaam kon léegi góor ñi comme que nee nañ ko góor moom moo lay euh, moom moo lay remplacer léegi nag mu ne góor gu judd nañ ko rey bàyyi jigéen ñi léegi mu def ko def ko pendant ah, boo continuer dëkk bi am góor de mu ne kon léegi nu may def mooy maanaam léegi damay damay bàyyi at bi su ma reyee góor ma bàyyi at beneen góor jigéen mm. léegi nag beneen euh, beneen at ma rey maanaam muy alterner mm. mais nag suñu borom ci xal ci xemmamteefam ak si xarañam bàyyi ko ba nga xamante année boobu la war a rey mu daa def yoon di yàlla Moussa judd Moussa judd xanaa suñu borom ma bëri histoire mu bàyyi ba nga xamante si lu Firawna war a rey pour wax ne rek maanaam mbir yi si loxo suñu borom la ne donc mu daal di mu daal di juddu ko donc xëy na yooyu exemple la rek comme dañu njëkkanteeg temps bi donc ak yeneen ak yéen yoo xam mënu ko pour dire ko donc le rêve moo dafa nekk loo xamante ni kon nit ñi dañuy nekk ak moom chaque chaque jour donc loo xamante ni lu normal donc pour revenir à la question nga waxoon waaw tey jii nii euh, Sénégal bon am na ñi nga xamante ne même bu dul Sénégal sax mun nañ ne am na ñi nga xamante ne euh, dañoo spécialisé wu ci euh, gént mhm. loolu aussi ñu bëgg xam ndax euh, réellement mën na nekk. Mhm. comme par exemple tey benn maamu moom leen day firi gént. lu mhm. am daal ñëwal ci moom dana la wax lii ak lii la demee. waaw effectivement loolu am na. Mhm. l'islam sax da ko reconnaître boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax moom firi na ay gént mais ki nga xamante dëgg-dëgg mooy le précurseur. à part yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam mooy le précurseur mooy ki njëkk a commencé firi gént mi ngi tudd ibnu ibnu Sirin moom mi ngi ko jàngee ci ki nga xamante mooy way juróom bu góor maanaam papam la ko jàngee hmm. kooku noonu boo xoolee ñi nga xamante ñuy firi gént yëpp yëpp foofu si moom la jël ay référence hmm. boo demee da laaj dañ ko tafsir ibnu Sirin ci wàllu euh, ruxya da nga ko ciy gis hmm. donc daanaka ñi bëri ñi firi gént ci loolu lañ koy te loolu lu am la lu nekk la parce que nit tamit day gént mais xëy na yow amoo science boo xamante ni mën nga interpréter li nga xam mu nga gént donc nga lislaam dàqul benn yoon li nga xam mooy firi gént dañ koy accepté ci li nga xam lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla yusufa firi yusufa effectivement gént na li doom yi li débu ci histoire am mhm. euh, isa euh, nañ ko waxati euh, doomu bàyyi non te doomu bàyyi te gént la woon gént la tàmbale voilà yonent yàlla gént qaala yusufa li abi yaa abati inni kabat wa samsa wal xamara raaytu mu ni saajidin donc mu ne yow sama baay man damaa gént li nga xamante ni mooy le soleil la lune ak ma sujjóotal mm-hmm. ñu nekk douze ba mu mm-hmm. limee léegi ñu ah, na ki nga xam mm-hmm. mooy Yankooba xam la mooy gént mu ne ko ah fexe ba sa gént gii de ah bu ko wax mukk li nga xam mooy say doomu baay léegi la ci xew xew mais gént boobu noonu maanaam le fait la lune les étoiles ak le soleil di ko sujjóotal 40 ans après si la gént ba réalisé loolu mooy lan mooy bañ defee histoire ba comme ni ko nette ñu dem ba nga xamante ni donc ñoom jóge nañ fi nga xamante ni mooy misra ñëw fi nga xamante ni fa lañ jàppee ba nekk fa li nga xamante moom mooy buur mm-hmm. ñoom ñëpp nag bañ demee ba li Yusuf baal ñu ñëpp dañoo sujjóot dañoo sujjóotal ki nga xamante ni mooy Yusuf Yusuf mm-hmm. daan ne papa lii de sama gént bu ma géntoon yaa 40 ans mm-hmm. kon nga gis ni kon l'interprétation des rêves donc dafa nekk loo xam lu am la donc l'islam da koy da koy da koy reconnaître balaa ngaa balaa ngaa dugg foofu yonent bi par euh, sallallahu alayhi wa la demee jaxran lay doon wala si gënt lay doon. voilà moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ba sunu borom doon wax ak moom maanaam jibril lay yónni. Mhm. jibril yónni donc moom comme ça par exemple li fi sunu borom njëkkee wax ak moom. Mhm. dafa yabal jibril fële si xaaru xiraax mhm. mu dem fekk ko fa. njatt ko ne ko iqra mu ne ko ma anna bi xaar mu ne ko iqra bismi rabbika donc jibril kon boo daana moo nekkoon intermédiaire bi nga xamante ni kon moo doon dox ci diggante à part à part sallallahu alayhi wa sallam yeneen yonent yi naka la naka la daan demee voilà ki nga xamante yonent yi kiñ si li si histoire indi mooy maanaam yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa moom mooy kalaamu la moom da doon wax ak yàlla directement mhm. moom day wax yàlla loo mu wax mu dégg mu wax mu dégg donc ñu échanger de façon de façon de façon directe voilà waaw waaw euh, <laughs> d' accord muy noonu Imam Babacar mhm. euh, tey jii nii aussi ñi gis ni rek vu que dañoo ne ak thème bi rek euh, parfois rêve doon source de conflit mhm. léeg-léeg da nga gis ñu gént rek amaana peut-être mu juum gént loolu xaw a doy waar yow rek mu ne diw diw la est-ce que mhm. aussi vraiment nit war na doxalee loolu te nga ne vraiment da nga bokk ci xeetu ah non déedéet déedéet xam nga tamit boo xoolee mooy des fois sax boo xoo boo dem si ñuy firi gént des fois. ñi ci gën a ñi ci gën a point ñi ci gën a xariñ. Mhm. dañ naan def dinañ lay laaj certaines questions. Mhm. par exemple ki nga xamante ni par exemple moom moo reeree fondé. ak ki réeree ginaar ak ki réeree mbaxal bu ñu jënte la même chose ça ne signifie pas la même chose day différé par rapport ak ci ki nga xamante ni donc si loolu la no situation bu muy bu bu muy dund la li nga xamante ni moom la moom nga posé question bi nga posé léegi par rapport nit ki gént benn affaire daan ne diw la. interprété ko nu ko mu ko neexee. Hmm. loolu noonu des fois ah. mën ko daal koy mere daal koy loolu nag kooku noonu. bu amee benn arrière pensée. Hmm. sunu borom bu ëllëgee gën a ko laajoo moom ndaxte des fois. ah nga gént diw daal di wax turu diw rek ñu ne diw dañ koy tooñ par exemple. Mm-hmm. xam naa da nga bañ a egg. donc ah, <laughs> voilà loolu da ngay gis koo xamante ne day jékki-jékki feebar feebar bu métti wala muy nelaw rek gént daal di ne diw nangam. Mm-hmm. ba mu waxee léegi ñu ne ah diw de nangam nangam nangam kooku noonu donc nga jël ko di ko xoolee yenn bët yi wala nga koy nga koy am yenn bët yi nga xool yenn sunu borom ne bu ëllëgee di que da ngaa tooñ mm-hmm. nit ki li nga xamante ni mooy de façon injuste ndax tooñ ak zulmu zulumaatul yowmal qiyaam donc mu ne li nga xamante ni kon mooy euh, Euh, mooy tooñ lëndëm la ci nga xamante ni kon mooy bis lëndëm la lay doon donc wala bis penc ci bàmmeel kon donc loolu noo dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la mais tamit boo xoolee li si bëree bëree bëree bëri lu koy ñu koy lu koy def nit ki day dem bu demee par exemple mën na feebar ba sonn. léegi nag bu feebaree ba sonn dem ba dax tëdd ni dina sax après commencé di délirer léegi nag bu délirer xëy na mën na wax sax turu xarit bi nga xam moom a fonk mën na wax turu xarit bi nga xam ne moom la gën a bëgg léegi ah li ko defee lislaam jàngale ci ki nga xamante ni euh, mooy moo gént gént boo xamante ni safaan la d'abord li ci gën mooy maanaam bu fekkee da ngaa tëddee benn côté gauche na nga tourné nga tëdd côté droite. Hmm. boo tëddee côté droite après tamit ah def invocation def invocation waaye invocation balaa nga def ñetti crachat noonu. Hmm. comprendre nga léegi après nga jóg dem dem jàpp ji boo jàppoo ba pare après soo mënee julli nga daal di julli wala sax après tamit nga daal di ñaan mais nag li nga gént li nga xamante mooy safaan parce que lu si ëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax bu fekkee nit ki dafa loo xamante ni safaan la. wala loo xam lu ñaar moom da koy interpréter positivement parce que bu ko waxee rek loolu day am. comment bu ko waxee rek loolu day am moo tax à chaque fois da koy interpréter positivement te bu demee rek loolu mooy am parce que am na koo xamante ni dafa géntoon mu dem euh, benn soxna la. jëkkër ji dem xare wante jëkkër ji ñëwul mu ñëw wax ko yenn saa mu ne ko ah, jàppal ni ko gën a ñëw mu def ko à deux reprises mu daal di ñëw wante nag ba mu ko fa bàyyi ba mu après un nag mu daal di géntaat daal laaj keneen ñu ne ko ah kooku de sa jëkkër joo du du du ñibbisi mm-hmm. fa lay des effectivement donc fa la fa la des donc mm-hmm. maanaam bu fekkente ni moo tax boroom xam ne bu fekkente ni dangay ngaa gént lu baax wax ko ki nga xam ne moom nga gën a bëgg ki la sopp parce que boo ko waxee rek mën na mën na réaliser wu dans le temps te day dans dans l' espace ba day réaliser mais nag bu fekkee nag da ngaa génte safaan nag foofu dans ce cas il est il est préférable donc de euh, nga mm. la question nga gis ni nga xamante ni mooy nga génte di ko jiindi wala naanga ma ah vraiment kooku moom l'islam rafetlu ko mm. l'islam bëggu ko te boo ko defee ne yaa ngi tooñ doomu aadama mm-hmm. si sa même côté science sax boo gisee amoon na ay jamono vu que léegi sax mun nañ ne euh, euh, euh, liggéey médecin yi dafa avancé bu baax a mhm. baax parce que amoon na ay temps nit dina am pali sax bu amee pali di tudd ay tur ay tur effectivement bu hôpital médecin bi day comprendre day ne kii instant yi dëgg la parce que feebar bi rek parce que feebar bi moo dafa fo parce que dafa egg benn benn degré aigu boo xamante ni day mm. mu egg benn degré boo xam ne donc mënul contrôlé wu. Mm. xëy na xaritam bi nekk mu daal di koy wax di loolu c'est donc ay délire la kon mm. donc moo moo tax donc des fois ah, il est très donc il faut faire très attention ci affaire yooyu noonu quoi. mais Oustaz est-ce que nekkul moyen de communication entre jaam bi ak boroomam. non effectivement si boo xoolee. li gën tamit mën a nekk mooy de communication entre jaam bi ak borom mais boobaa nag du nekk koo xam ne sa diggante diw ngay gént mais ba ñuy diglee comme tabaski par exemple. ci gént la ñëwee. Mm-hmm. Youssouf comme wax nañ ko léegi ba muy ñëw moom tamit loolu noonu tamit si gént si gént ba muy nekk buur si gént la ñëwee. Mm-hmm. maanaam ba tey tamit suñu borom euh, bu la bëggee teral wala mu may la yenn xam-xam yi bu yenn baatin yi dala koy ci ci gént la lay feeñ yow mu nga gént dara noppi jékki-jékki rek gis ko mu réaliser wu ci saa si mm-hmm. mais nag yonent bi sallallahu moom nee moom képp ku ma gént. man rek mën nga gis mu kenn mënu mm. jël place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. Mm. waaw moom nee na moom képp ku ko gént moom moom la te bu ëllëgee mu àjjana nga jëm directement ah, donc waaw kon nag <laughs> waaw mi ngi rek moom mi ngi noonu mais moyen de communication donc jàmbit am na fu muy degré de piété bu muy toll suñu borom day da koy wan da koy wan yoo xam ne da koy gis donc voilà parce que mel na yàlla buy communiquer ak yonente yi da leen di wax yi da leen di nga xam ne duñu yonente mm-hmm. da leen di ilham da leen di ilham voilà jeex na gént dem li si ay wax di di di aventure jëm Nicaragua mhm. maanaam ñun amuñu guide ki dàq gént ci ñun ah. moom la ñuy gën a déglu li muy wax mais loolu dafa am sax parce que boo xoolee ki nga xamante moo yënd yàlla suuf su kaso ba mhm. pour te di tamit euh, booy gént mhm. xoolal bu ko foowee si kaso ba dafa am koo xamante ne dafa dégg ne ñu ne ko kii dafa mën a gént parce que moom ñi ci biir waxtaan nii rek mi ngi doon firil nit ñi seen ay gént bi ci kaso bi léegi nag waa ji kenn ki daan ne man damaa gént kenn ki géntul dara de ah. mais bëgg a saboote xam pour te dire que nit nit nit moo doy waar hmm. ki man damaa gént euh, di di defar di segg li nga xamante ni moom mooy sàngara hmm. daan ñëw wax ko Yuusuf ñu ne ko ah yow de léegi nga libre léegi nga génn te soo génnee kat ci kër buur ngay liggéeyi yi jee hmm. léegi keneen ki toog toog ñi ah jékki-jékki ni man damaa gént picc di lekk mburu sama bopp bi <laughs> mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw ah, comme que picc mi lekk mbuur sa bopp jàppal yow boo <laughs> boo génnee gën la rey mm. effectivement noonu la génne noonu lañ ko acté moo tax donc am na yoo xamante ni même booy fo am na yoo xam bu ko wax ci génn na damaa mm. génn nangam di fo mm. bu ko bu ko bu ko wax c'est pas c'est pas moo tax après tamit boo ko noonu dim liggéey ci ci ci këru buur ba nekkoon prisonnier ba buur ba génn génte tamit bu def wala buur bi sax dafa njëkk a woo ñi nga xamante ñoo nekk ci euh, dans son entourage xam nga mm-hmm. buur yi ñoom dañuy am li nga xam mooy cercle restreint boo xamante ay borom xam-xam ñoo ci ne mm-hmm. mu woo leen ne leen man ko damaa gént benn njëkk bi euh, juróom-ñaari nag di lekk juróom-ñaari juróom-ñaari nag yu woom di di lekk juróom-ñaari nag yoo xamante ne yu am kattan lañ après mu daal di génn daal juróom-ñaari nag yoo xamante yu am kattan lañ di lekk juróom-ñaari nag yu woo léegi woom maanaam yu xiif mm-hmm. loolu na leen koy fee ñu jaaxle jaaxle laaj ba sonn kooku nga xamante ne moo nekkoon doon yuusu prison ba moom moo ne ko am ah, man de am na ku ma nekkoon ci prison kooku moo xam naa ni mm. bis boo ko génnee gën a firi gént bi mu boole leen ak Youssouf mu boole leen ak Youssouf Youssouf <laughs> daa ñëw daan ne leen daan ne leen li leen mooy am mooy donc euh, dund gi day neex lool maanaam mooy li nga xamante juróom-ñaari nag yi nga xam suur nañu di lekk juróom-ñaari nag yi nga xam suur léegi nag bu amee sept ans yooyu lan ngeen di def mooy na ngeen fexe ba récolte yi ngeen denc ci loo xamante ni donc à l'avenir gën leen gën leen euh, euh, dimbali. Mm-hmm. léegi nag li nga xamante ni nag mooy juróom-ñaari nag yu yooyu yooyu di lekk juróom-ñaari nag yu suur yi mooy maanaam à l'avenir jàpp leen ni kon di gën a am sept ans de disette yoo xamante ni sept ans de sécheresse sept ans de famine yoo xam ne di ngeen ko sonn léegi nag pour éviter cela li moo jiitu loolu lu ngeen denc lu ngeen mën a denc ci wàllu économie mm-hmm. si <laughs> temps bi xoj na ñu def ci benn question rek. Mhm. Euh, li oustaz